mu ne ñaan gi sëñ Moxtaar Binta bi mu wàccee liggéey sëriñ Fadilu ak sëñ Basiru ak sëñ Amadu Jaxate ñoo ko doon taxaw dañ demee ba denc ko ba noppi ñu ne nañ joxe ñaan ñu ne nañ joxe ñaan sëñ am sëtu sottu sëñ am sëtu ci fottu su maa joxe ñaan ne man maa joxe ñaan gi sëñ Fall ne ko bisimilaay doxal sëñ Fall ne ko bisimilaay doxal mu ne mu ne na ñëpp teewlu mu ne na ñëpp teewlu ku koy jàng te ku jë ku koy jàng sa bopp nga koy jàngal na nga mel ni sa bopp nga koy jàngal bismillah naa ni ñëw bismillah mu ne jàng na kenn ku jàng ñaar fukki bismillah rahmaan rahim mu ne na kenn ku nekk jàng ñaar fukki bismillah rahmaan rahim jàngee ba noppi bañ jàngee ba noppi mu ne kenn ku jàng fatiha mu ne na kenn ku nekk jàng fatiha bañ noppee bañ noppee mu ne kenn ku nekk na jàng ñeent fukki lexlaas biñ noppee mu ne nañ ci teg ayatul kursi daal di sëriñ bi de moo wax ne daal di sëriñ bi de moo wax ne képp ku bàyyi ko. képp ku fi bàyyi ko. ñu defal la ko. ñu defal la ko. boo teggee boo booy del bu lor yu noppi. bu no lor yu noppi. mën nañu wax ne mën nañu wax ne tàbbal nañu ko àjjana. mën nañoo wax ne tàbbal nañu ko àjjana. alhamdulilah beneen beneen bi itam. muy fàttee bi. muy fàtte bi. ayatul kursi bi. ayatul kursi bi. lexlaas bi. lexlaas bi. falax bi. falax naasi bi. naasi bi. képp koo ñaanal. képp ku ko ñaanal. néew. am néew saa borom jéggal ko saa borom jéggal ko njëggal rek lañ soxla ca njëggal rek lañ soxla moo tax ñu fasaale jullit yëpp moo tax nan ci fasaale jullit yëpp fasaale ci murid yëpp rek fasaale ci murid yëpp rek tàmbalee ko ci li tax ñu ki ki tax ñu daje tey